bee waaji seetee ba noppi xam nga lu ma waxa ne ma sëñ bi da nga da nga da wàññi da ngay wàññi sa ndey te man ñàkk a lekk tax ñu ubbi ma fa mu ne ma da ngay sa ndey jox ma we jox ma rendi bu weer ma ne ko ah yow de yow de bu yow de bu ñëpp mënoon ne man maladie faatu saa si rendi bu weer kon gouvernement bi na dimbale médecin yi def fay jumtukaay yoo xam ne yi nii ñi dañ ci mën a faju